Euh, euh, la première question c'est euh, par rapport à ki nga xam ne moom lay liggéeyal dem ci sant yàlla bu baax di ko remercier encore de son excellence le président Macky Sall. Mm. dama jàpp ni au la même de l'éducation bu dee dëgg rek a tax ñuy wax. Mm. parce que suñu borom dëgg rek la bëgg nag. Mm. le président a beaucoup fait pour son mandat ou ses mandats il a beaucoup fait. et amul benn secteur bi ngay laal. bu dee dëgg rek a tax ñuy wax. Mhm. amul benn secteur dans la vie publique nationale. Mhm. boo xam ne le président Macky Sall defu fa loo xam ne ku taxaw mun na wax ni lii de ñu ngi koy door am. Mhm. et dans tous les domaines. pour ñëw nag dans celui de l'éducation li ci dolleeku ci liggéey bu muy def c'est l'élargissement de la carte universitaire sénégalaise loolu ñëpp gis nañ ko mais surtout cette trouvaille du président kii di que non. nos élèves nos étudiants mënuñ leen rek dugal dans l'enseignement classique il faut ñu créer des ISEP des institutions yoo xam ne c'est d'enseignement supérieur mais à caractère formation professionnelle gis nga loolu dafa am solo loolu mooy permettre au Sénégal mais mu am une main-d'œuvre professionnellement qualifiée ISEP yooyu te loolu dafay wane ni au lieu que ñuy plonger wu continuellement dans l'enseignement général pour ne pas dire avec des généralités mais ñu am mais des gens qui sont formés dans des domaines précis et qui peuvent aider l'économie et aider seen bopp parce que euh, le problème de l'enseignement de façon générale en Afrique c'est que da ngay gis ku jàng ba am maîtrise et il ne sait rien faire wax na nag bu ñu amee un enseignement qui aboutit à une formation qualifiante formation professionnelle à partir de ce moment ku ci génn il est capable de faire ceci dina mën a régler lu bëri te dina dina mën a liggéey beneen aspect bi aussi mais le président quand il a parlé des classes préparatoires c'est excellent ça ça participe à notre souveraineté parce que la ñu gisoon de 1960 à aujourd'hui mooy que nos meilleurs étudiants c'était toujours comme ça ils ont la bourse étrangère de tout ce volume d'étudiants bi ñu doon transféré à l'extérieur ñaata ñoo ciy dellu Sénégal pour liggéey le Sénégal kenn xamul nu mu toll dañ leen di compter wande bi président xalaatee ñu am les classes préparatoires au Sénégal c'est une façon pour lui de dire non ñi gën ci ñun bu ñu mënee créer les conditions qui leur permettent ñu étudier fii Sénégal avec tout ce dont ils auront besoin ba nekk de grands cadres scientifiquement accepté philosophiquement acceptés mais yooyu bu dee am nañu jiitu réew bu xalaate noonu loolu aussi dafay am solo je termine par oustaz parce que aussi quoi qu'on dise les arabisants ne sont pas en reste sous le régime du président Macky Sall d'abord on est allé créer le bac arabe sénégalais mm -hmm. ensuite ni élève français bi amee woon possibilité def yenni concours notamment l'ENA ñu ouvrir une branche pour les arabisans ñu mën a def ENA comme ñëpp ak daara moderne yi ak tout l'investissement qu'il a fait dans le monde arabe donc pour dire quand même dans le secteur de l'éducation